di gunal day garam di way ak sant si ñépp xam ñu naan soxna jaara soxna jaara bégal nga àddina wóor na yaa nu jox say xi bamba jaara ma jaara jaaratullahi mooy turam wañu tan jaamu yàlla ak liggéey ko may soxna jaara di ko nal day garam di way ak sant soxna si xam ñu naan soxna jaara soxna jaara bégal nga àddina wóor na yaa nu jox sayxi bamba jaara ma jaara jaaratullahi mooy turam wañu tan jaamu yàlla ak léegi ko may soxna jaaram soxna baaleeg maam bu zambaañu le jaara am nga tawfeex ku gam fa bal tudde jaara turandoow jaara ajjanaay wàccu waayam koo mën doon santal ci mbaax fi jaaram bu sobaale manoon ci kër man ci jaamoom fu mu jaar ni mu roy soxna jaara te di la xamal ni yaa laaj ci lu ñu sawar a wax ñun ay taalibe lañu di taalibe murit judd ci murit dama fàttali rek di ñëw poroxaan mbaaxu soxna si nga ñuy laaj fi nekk manees na cee wax waaye mënuñoo jeexal lépp xanaa wax ci lañ xam rek man maa ngi tudd Ibrahima Ndoye dëkk dëkk bu ñuy wax Fembul Ndooy ca wetu Ngaay Mex doon taalube sëñ Muntaxa damaa fàttali ko rek di ñëw Touba di ñëw Touba di ñëw Poroxaan ba léegi laay door a agsi waaye maa ngi jóge Ndakaaru fi mu nekk Wakaam ak suñu mbokki taalube yëpp ñi fa nekk ñoo ànd doon ay daayira ñëw mbaaxu soxna si moom wax dëgg ñun ñëpp dañ jigéen ñi gis nga li ñu moom kenn mënu ko misaal moom daanaka man nañ ni jigéen ñi ñoo ci ëpp sax fi ne luñ ciy jëf ñoo ci man góor ñi waaye ñun góor ñi waruñoo des ginnaaw fi mu nekk ndaxte mbaaxu soxna si ñëpp la laaw fi nekk wax dëgg ñun sant nañu tey soxna si xam nañu lim ñu defar ak lim ñu féete saa boo fi ñëwee ñaan fi dara balaa waxtu wee del si la doon ñaan di nga ko gis man ci sama bopp de lépp lu ma fi mos a ñaan rek gis naa maa ngi sant bu baax fa ma jógee muy fembul ndooy sant suñu waajur yi ak soñ rakk yi liñ ci mën a wax bari na waaye xanaa ñu yem ko fii rek sant nañ leen bu baax daal yéen it yéen a ngi liggéey liggéey boo xam ne ñun ñëpp la war te mënuñu ko kon nag mënee sole na fay yàlla na yàlla barkeel seen liggéey te yokk leen kàttan defal leen ay xéewal ba nga xam ne lépp lu ngeen bëgg a liggéey ci liggéeyu soxna si di ngeen ko di di ngeen ko ci mën a gën a def sant nañ bu baax daal soxna si moom kenn amul fayam loolu moo yëkkati ñëpp fi mu ne dëkk bi dangay gis fi mu nekk dafa mel ne lañ ko deful daaw moom la moom la nit ñi fay ko sa ren ji moom ñu gis sant sëñ Muntaxa te di ko ñaanal soñ borom defal ko ba nga xam ne lii mu naal dina ko àggale bañ bokk bokk bañ bokkaat di naal yeneen naal ba lépp àgg tañ bokk koog moom defal ko fan gudd ak wér ndaxte moom gis nga bam fi nekkee ba tey liggéeyal soxna seek yoonu lislaamak boole ñëpp ci la fi nekk moom sant nañ bu baax dal moom di ñaan mboolem kilifa yi yi fi nekk ci yoonu murit wi xalif général Baye Fall bàyyiwuñu kenn rek kontaan nañu daal fi mu nekk dañoo mun la wax waaye li ñu war na wax daal ëpp na lii yéen sant nañ leen bu baax a baax jërë ngeen jëf. rajim bismillahi rahmaani rahim. wa sallallahu taala ala sayyidina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman ah sëñ bi yéen waa Tawfekh Production ñu ngi leen sant bu baax di ñaan yàlla barke soxna maam jaara yàlla barkal seen liggéey eh, ñun soow la ñu jógee waaye suñu cosaan Gàmbi la suñu sëriñ mooy alaaji daabo sëriñ fàllu ah dañoo ñëwoon fii Poroxaan siyaare si ci di taasu si barke soxna si ndax daaw ak daaw jéeg dafa mel ni feebar bi tax na ba kenn ñëwul waaye ren ñëpp ñëw nañu di barkeelu di ñaan yàlla sëñ Muntaxa mi nga xam ne moo nekk si jal bi yenn ko fi yàlla yàggal yàlla wéral cëram bépp naal bi mu naal yenn ko àggal ak sagom bakk sëñ Tuubaa ànd ak taalu taalibe yi nga di sant bu baax a baax a baax si teewaay bi asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakaatu jërëjën jëf kiram salaatu silar silasi misammadi ala nabi wa ali wa ahmadi rudda makaid alhida ila alhida ya man abaniya bi muxjilil da awsili kulli muslimin wa muslima masaratan ya man kafani jalama لكل مؤمن وكل مؤمنة أوصي البزارات لسف المؤمنة مدى لكل محسن والمحسنة على بصارة ترى مصاصنا وجيل أمة رسول الله عليه خير صلوات الله مدد من مات يقول كن يكوني yaa man yu kawinu mu nan lam takuni naa jeytukal yawma bi hamdin wa sukur fi muminina ya wali ya sakur ya qadu li kun fa yakun waji min kabila iqdin wala tahaji nafayta iblisa li khayri abada fi sanrisa wa kulla man lam yahbuda waji liman qad amanu wa aslamu wa ahsana mukhjila man lam yusrimu kawil li ummati nabi salla alayhi bi taslimi rabbun jalla ijabatan tusasiu ada ila siwa يا مهيمن ليستجب وللذي يهيمن حفيظ أمة خير المرسلين عن الذين كفروا برسلي خذ لهم نصرا عزيزا أجلا وبصيرا حبك يا من عنده مسيد أني ذوي الإسلام أن ركوني إلى هداك وأني سكوني على نبي ورسول المدد صل وسلم يا مبيد من جحد للمنتقى والآل وصحب الكرام أوصل سلاميك وجد لي بالمرام يا من لا الخلق كما له الأمور يا مغنيا أغنيتني عن الدمير ناجيتك اليوم وأم سراجيا ولي غديت دون سكناجيا أوصل أمتي نبي أحمد مصلي على في من عمدا nasran asiisan yasmalul kibaara maa siqaari rud lahum man baara zullil adliisa wal furaa kal kitaab ani lasi namtana min al mataab raafiu birfahil kitaaba wal furuu maa al aali siisiyaay saaburu aataytani jamia wali taquudu suxla waxta talabi li awsili lasi uridu an fay bi alwaraya muxniyan an mit fay ma hawta xasadurili bil muntaxa wa xutali ma wadu sawtuxa di kunal day garam di wayaka sant soxna si ñëpp xam ñu naan soxna jaara soxna jaara gël nga àddina wóor na yaa nu jox Seyxi Bamba jaarama jaara jaaratullahi mooy turam wañu tan jaamu yàlla ak léegi ko may soxna jaara